barke na bi buntu bi garab bi franc franc mooy buntu jàkk ji franc la jël Youssou Ndour ah ndaama la ci pikin. yow a yow mais Franc daal jeexal lamb. ba mu jëloon mu jël maanaam fils de Balla mi ngi ne Balla kii dafa yor ay ni balaa na leen. sàppali waaw ndaama la ci pikin. kan la ndaama la ci pikin. kan ngay wax. nee na moom it bëgg naa noddu. miin bi. am na seen miin na foofu. nee na ma miin naa géej waaye loolu. wóoragul ma a ñun na kër googu. ndaama la ca parcelle daal ngeen bëgg naa dugg jàkk a ci géej waaye dootul. waaw Franc nag nee na pikin tëj na kër yéen. te nga kenn du ko dugg. ah. ku si lu ah? waaw. c'est waaw. C'est la, la grande guerre des rois. lépp dañ koy yebaan. non dama ne dama ne. yéen Fra lu yéen Fra. Fra daa def ak programme. mais kii ci Fra naan mooy sama papa. moom la ciy jàpp naan mu mani mani la falam waaw la bataille des tanks orale la ilaha illallah la guerre des royaumes oui oui oui le roi oustaz. le roi oustaz. le roi oustaz. ak Simba. dama ne. Modou Lo dëgg la. te kat gars yi nee nañu ah. Ah, ko ndax dañ ne ndax dañ ne couronne ba yàq takkoon couronne ba amal seen takkoon Sénégal yëpp jamono bi empereur lañ bëgg bëri ndax mooy fay. attention. xaalis ñu Bousse li may laaj Simba dina ma ci toog. Simba non subaa ci heure bii. bu fi avance Simba deuxième avance. rogolaatee jaar biir Guédiawaye jaar Canada. fële rond-point Touba Lees ak xulaay taala di nga ko jël. ñemewu ko. bu avance yaa oustaz. waaw duggee ci kaar yi. ndax waa géej waaye mën nañoo daal mut loo. yow bu rond-point Touba Lees. dugg seen biir kër est-ce que sañ ñu ko. daf ñuy neexal. Eh, neexal la. Eh, da yaayam nangu na ba pare. yaayam daa amul moo yow sa yaay nangu nañu. waaw. yaayam moo bañul. yaayam du bëri Balla Gaye. buur buur buur Modou Lo c'est la Modou Lo. wala yow yaayam moo bañul. buur empereur bu dugg empereur bu fa dugg ci Modou Lo. barke Rasulullah waaye bu ñu xamoon mooy ñoom dañuy neexal bu ñu bëri ñoom. lu tax loolu. parce que kii lim yor dañ koy fay chaque weer di ko fay ravitaillement di ko yoroon pour dëkk. kii loolu may na. te loolu may na. trois des années amul loolu may na. waaye Boucher Modou Lo c'est la Modou Lo. waaye dimbali ma waay yow nga naan maa ngi. Ah, waaye loolu kenn ci yow. ah. barke Rasulullah cox li cox li dafa. eh cox li cox li. Modou Lo fi nekk dafa ne Modou Lo kenn ci wàllu la bataille des dàq Qur'aniyya. Balla Gaye de boo tuddee Modou Lo rek moom mu gën a. nee naa la barki de moo ñëwee Modou Lo nelawul booba si. sawaru ci Modou Lo. non Modou sax nelawul booba si. lan ah Modou Lo Aliou jërëjëf léegi. voilà Aliou jërëjëf. waaye sax léegi. Aliou waaye rajo yi mooy. Modou Lo ku mu jàll yóbbu laa li si. daa aay ci paa yi de sax. waaw waaw waaw daa aay ci troisième hmm, âge yi. da cee aay. Modou Lo daa aay ci troisième âge. ak <laughs> ah, ah, ah. aay ci super moom. mais kii amul tur jàpp. mais kii am na ku jàpp ku jàpp li Modou Lo moom Modou Lo la woon. dugub Pikine. Modou Lo daa dugub Pikine daan Eumeu Sène ñaari yoon. dugub Pikine daan Boy Niang. dugub Pikine <laughs> <laughs> yéen ñaar bi laa wax. waaw. balaa ngeen a génn kër gi. waaw ah loolu la ñu waxoon dégg nga. ndax la naka la ñu lool téléphone yi fay. loolu la ñu waxoon dégg nga. naka la ñu lool waaw baax na. naka la ñu lool ajuma ku mu naqari tegal sa kóoram. maanaam maa ko wax ma ne laay bos moom mi ngi fi pour ñëpp. déedéet eh, am na lu ngeen bëgg am na lu ngeen bañ. Ah? Simba Simba loo bëgg ak looy bañ. waxul. sa diggante yàlla mi est-ce que ñeme ngaa teg a couronne yow ñeme na. ak ak salaire bi. ñeme ngaa doon sa couronne ak salaire bi salaire bi. sañ naa dugg jàkk bi dafa seen ji dafa jullee. day lay def ak Franc. Modou nag wax dëgg la Modou nag gis nga yow Fara wax jaa ngi bëgg am wax jaa ngi bëgg am wax jaa ngi bëgg am borom. ah Modou de wax lay fanaan. nag bu mag la de. wax lay fanaan. eh